sur 1351 tests réalisés, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 19 cas contacts suivis par nos services, 9 cas importés enregistrés, au, euh, 5 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Pikine 2, Bignona 1, Cité Douane 1, Guédiawaye 1, Guinguinéo 1, HLM Fass 1, Mbao 1, Nord Foire 1, Richard Toll 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1 et Sicap Foire 1. 101 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 30 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 019 cas ont été déclarés positifs, dont douze mille cinq cent trente huit guéris trois cent onze décédés et donc deux mille cent soixante neuf patients sous traitement ci junni ak ñett téeméer ak juróom fukk ak benn test yi ñu def fanweer ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro am nañ ci juróomi cas importé mooy ñu jógee bitim réew te ñu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukki ak ñett ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñu fi ñu ko jëlee wala ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee pikin am na ci ñaar Bignona am benn Cité Douane am benn géejawaay am ci benn Guinguinéo am benn HLM Fass benn Mbao benn Nord Foire benn Richard Toll am benn Rufisque am benn Saint-Louis am benn ak Sicap Foire am benn. téeméer ak benn malade yu entré woon hôpital wér nañu bés niki ki tey dinañu génn bu ci Yàlla àndee juróom benn malade ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bu su démb alarba fanweeri fan ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom yu teg fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñaar ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett wér nañ ci ñett téeméer ak fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent si lal hôpital yi wala ci loxo docteur yi